dafay def classement benn liste jigéen yi dàq ci àdduna bi mm. chaque année liste bi liste bi dafay def polémique Beyoncé mi nga wax mosoon na ci nekk ah, benn année mosoon na nekk la plus belle femme du monde mais actuellement xool leen photo kan moo nekk la plus belle femme du monde magazine Forbes Lupita Nyong'o suñu actrice bi nga xamante ne dañ ko découvrir ak 12 euh, years slave il y a six mois personne ne la connaissait ah film bi daf ko jouer euh, meilleur second rôle aux am na mhm. yeneen ko mais la femme la plus belle du monde polémique bi mu créé kenn xamul nan la toll parce que nee nañ elle ne rentre pas dans les critères de beauté yi nga xam ne dañ ko dugaloon parce que bu ñu dee jël sax femme voilà c'est la couverture du magazine il y en a cinquante moom lañ choisir mu nekk numéro une bi tout le temps dañuy jël critères de beauté mhm. euh, occidentale di ko di ko di ko def mhm. ne ñoo ñooy dàq ci àdduna bi ñu bëri ne dàqu fi pour yéen rafet na rafetul Non, elle est belle. Non, hein. elle bon après euh, après c'est relatif ah appréciation dafay euh, dafay relative ah. peut-être ñoom jury bi ak ñi def ñi tànn. ñi gën a rafet. ñoom ñoo xam mais controverse ku nekk ak sa ak sa xalaat. donc beauté ku ne ak fi nga koy xoolee. bu ko xoolee ci naturel. et tout ça ni mu amee kanamu africaine. watu mm-hmm. et tout nature am rek lay wone. même sans maquillage elle est jolie. tu peux dire qu'elle est belle ah. elle est belle parce que femme africaine yu bëri en fait c'est un exemple bu ñuy joxe parce que mm-hmm. femme africaine yu bëri man ñu ci bëri. pour ñoom balaa ñuy rafet il faut ñu def benn tissage xam nga euh, maquillé wu xaw a ah. jege tuuti yokkutaar xaw a ah. jege eh, tuuti eh, eh, européenne yi te loolu ñun xamuñu ko mais psychologiquement ci xale yi africaine yi daf leen di wan comme si ñoom elles sont moins belles que yeneen xale yi parce que man je me rappelle bi ma nekkee xale dama doon laaj sama papa toujours li tax aw ma tubaab yu gudd yu lii sii nii parce que tout le temps critère de beauté yooyu ngay gis ci télé bi donc là ça change on te l'impose Euh, yoo xamante ne nez tout ce qui va avec. c'est comme semaine dernière semaine dernière y avait amoon na benn genre commentaire bu mel nii ci euh, ay nit yu africain yi gën a puissant. Mhm. Ah, Youssou Ndour qui en fait partie mais mu bokk ci cinq premiers yi. Mhm. alors le plateau que je regardais euh, commentaire yi c'était Youssou moo waroon nekk premier ñeneen non non non keneen moo waroon nekk mhm. premier donc y a eu beaucoup de. commentaires c'est relatif c'est relatif mais man man man décision bi waa people mm. l'encourage parce que pour. xale yi mhm. ils vont avoir benn image bu ñuy gis bu ñu nee Lupita rafet na man je suis noire j'ai le nez épaté j'ai les cheveux crépus yu gàtt mhm. je suis belle comme Lupita donc euh, xaw ma kan moo leen jëlaloo décision bi mais franchement ils ont bien fait eh, mais mais euh, après aussi euh, ex ak malal di ngeen d'accord ak man mais ñun moom dañu dañu taamu nag ay forme ak ay anse ak yooyu noonu yu baax dañu ah, ah, taamu rondeur nag ah waaw waaw hmm. talpadam bëgg na ah, ah oui euh, du de toute façon du tubaab bi ñoo ñuy trouver euh, kan ah, moo gën a rafet wala kan moo ñu gën a neex nañ ñu bàyyi ñu def suñu suñu soir rek talpadam bay seex a ah jeeg day fees bëgg nañ ko ah, suupal nag waaw jigéen daal day am salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw ak yéen du leen jàmm. voilà ma fi affaire de yéen yooyu yëpp day sori comme ni Mouhamed Mouhamed sama sama sama xarit loo ko mu ne la aw aw aw aw affaire de yéen yooyu yëpp day sori mais kii elle elle est jolie ah. elle est jolie et puis ñu ñeme dem sans maquillage ak karaw yi mu am. waaw crépu ah man de ñeme ma ko. si pourtant je vous dis vous êtes tellement belle. waay dafa xaw a nuroo ak. essayé leen ko da ngeen xaw a nuroo. vous avez très beau, une belle dentition. en fait voilà le sourire euh, voilà. femme boo xam ne man ce que j'ai appris ak ak ak kii ce que j'ai appris ak moom yàlla jeexul. xanaa rek laa jàng. mais Baye Cheikh man xam nga. il y a 6 mois kenn xamu ko woon kenn xamu ko woon. il y a 6 mois Kigali. waaw li ma njëkk a frappé. yàlla jeexul c'était la beauté de Rwanda. voilà yàlla jeexul quoi ngandam jaaro la ñuy takk. yow ñëw na l'émission ngay xool ay beauté. non xool Baye Cheikh boo wàccee aéroport obligatoirement daf lay frapper. parce que elles ont toutes le crâne rasé. takk ay jaaro yu elles ont de gros yeux. c'est comme day Fatou Kane bi oui ah, oui oui la euh, très naturelle ouais. Ah. yàlla waxul kenn dara xéewal day bette mooy yow yokkute day bokk day day bette alal ju bëri day bette siiw ba àddina yëpp di la waxtaane ba tubaab yi yéemu ci yow day bette donc na ñëpp muñ rek te xam ne lu am yàlla la voilà gaa moom moom yàlla la jeexul voilà comme xam nga rek man ni ma alal ji dabee rek ma lebal yow suma ibbi télé ne ko ne ko maa lay fay euh, euh, pour liggéeyal la euh, jënd appartement ci dëkk bu nekk Rwanda boobu nga wax am naa fa am naa fa appartement ah, sama biir a ngi metti sax dañ maa iñaane sax Rwanda bi nga dem moo jaaxal waaw am naa fa kër nag waaw d'accord lan moo nekk ci Rwanda dara am naa fa kër waaw bàyyi ko mu ficci waaw ficci xam nañ loolu on va parler beneen gars boo xamante ne moom liy def buzz ci racisme ci la bokk am nañ photom euh, Donald Sterling Donald Sterling je sais pas ba xam-xam ngeen ko propriétaire u euh, LA Clippers benn euh, ah. équipe de basket nekk NBA mhm. tout le temps bu équipe bi di jouer da ko doon gis muy daw simmeeku di accolade joueurs yi dugg na fi. génn fi ba tout le monde se disait que moom mooy président club bi gën a engagé. Mm. tenez-vous bien euh, TMZ dañu enregistré benn discussion bu mu amoon ak ex copinam parce que ñu léegi sa a mm-hmm. duré dix minutes. mu ne ko dix minutes discussion bi mu ne ko ak copinam bi. Euh, vice Kyliano sénégalaise métis la noir ak euh, mexicaine. mu ne ko la moo tax nga posté si sa Instagram photo sa photo ak Magic Johnson nit ñu ñuul ñi mun nga. tëdd ak ñoom bu la neexee mun nga leen yóbbu sa kër mun nga def ak ñoom lu la neex mais doo affiché wu ak ñoom doo leen indi sama ay match de basket alors que moom équipe am a 15 personnes les 10 c'est des noirs. Ouais. donc wax boobu dafa def tour Instagram tout le monde a réagi. Ouais. internautes yi di bind euh, je déteste les nègres sauf miens jël photo ci kaw def photo waa équipe bi ci suuf. <laughs> y a même un grand sportif un grand euh, basketteur euh, qui a trop mal pris euh, propos tout le monde a réagi au niveau mmh. des États-Unis ñi mën a réagir ñëpp et ça a pris, ça a payé ses prix parce que gel bi bi mu koy wax loolu gel bi ne ko yow da nga dof parce que man métis laa métis su ah, afro-américain ak mexicaine mu ne ko mun nga def lu la neex mais bu leen affiché je veux pas de dans mes matchs de basket alors que équipe am dix quinze lañu dix yi ay noir lañ. donc euh, finalement xam unis ñoom seen justice am na yoo xamante pas avec. instant bi dañu ko aj waratul am rapport ak NBA ak équipe am bi à vie et millions de dollars c'est rien pour lui parce qu'il est milliardaire mm. en dollars mais quand même c'est un geste boo xam ne applaudir même si au niveau des États-Unis ils se disent que c'est ce Euh, aj ko c'est juste se voiler la face parce que moom dafa wax juste li blanc yu bëri di xalaat et puis états évolution ba ñu dem ba président boo xamante ni c'est un afro-américain tu comprends pas racisme pourquoi continue toujours et je pense que nit yi waroon nañu de racisme ah. euh, mais dafa ay xeetu racisme yu bees yu mm. juddu yoo xamante ne ñu ngi ko gis de plus en plus mm-hmm. et ci yeneen forme lay jël mm-hmm. et tu peux même toi être avec par exemple un noir avec un noir ngeen di ànd alors que le noir il est raciste de toi tu vois il y a d'autres formes euh, at ce n'est plus maintenant de dénigrer la personne en tout cas ce qu'il euh, faut je pense racisme tout le temps montrer ko du doigt ba nit ci ku nekk ci solution je pense que solution yi buy am euh, dina arrêter yeneen forme de racisme yi ñu koy retrouver toujours ci sport ak Dani Alves mhm. Dani Alves c'est le défenseur du FC Barça donc dimanche bi ñu doon jouer contre Villarreal plutôt da doon jouer ñu sànni ko banaan mais xool leen ci vidéo bi réaction y a la photo et puis y a la vidéo aussi bi nga xamante ne si parce que fii lay sëgg voilà c'est la non, vidéo là. ko seetaan. non c'est drôle mais c'est un geste fort. parce que voilà gis nga fii lay waree tirer corner bi ñu jël banane. sànni ko il prend ça. bah oui il mange la banane. c'est la meilleure réponse à la personne qui a fait le mauvais geste voilà meilleure réplique boo xam ne humour la àndal ba pare nag dafa créer benn euh, mouvement bu ñuy tuddee banana mania on va le faire sur ce plateau. parce que célébrité yu bëri allez fais passer célébrité dañu jël seen banaan di lekk def selfie <laughs> euh, Eto moom moo a si gën a marqué parce que dafa toog ci kaw Porsche ba pare attention di lekk mu ne euh, da ngeen di wax que golo laa ni lool est ce que bëgg ngeen doon golo bi ma doon toog ci kaw Porsche sañse ba jekk moo ngi nii. Ah, ah, ah, donc c' est comme Taubira c' comme Taubira ministre bu France bi actuellement elle est en justice parce que lañu ko traité de singe. de singe voilà euh, et euh, moom tamit. on va faire des selfies avec nos bananes. non nous sommes des lekk katu bananes. des lekk katu bananes des africains des nègres voilà avec nos bananes voilà. arrêtez avec racisme voilà c'est la banane mania yéen ñi parce que geste bi ça tourne partout dans le monde. Ah. parce que bu leen ci euh, profité nag di téléphone yi nag après dañu delloo régie. <laughs> ñu delloo téléphone yi régie. parce que Dani Alves nekk actuellement benn symbole planétaire d'antiracisme donc Pape Cheikh il faut nga lekk pour mu marcher. Ah, ah, Mado il faut nga dagg banaan bi tamit. mais communication ça interdit de manger la banane. non dagg ko rek dagg ko rek. même boo lekkul man naa fi lekk banaan ñu indil ma coow maa bañ. dëgg la naan ma yaay lekk donc voilà <laughs> ñun ñëpp dinañ ko posté yéen ñëpp posté leen seen ay selfie et def leen hashtag Dani Alves pour geste bi gën a tourné <laughs> euh, il paraît que ki sànni banaan bi tam jàpp nañ ko. c'est bien fait ah ah bah est-ce qu'il a été euh, réprimandé. Euh, dootul dugg stade. voilà ah merci beaucoup. ça c'est clair merci commencé. écoute en tout cas racisme <laughs> baaxul. papa Cheikh on ne mange on ne parle pas la bouche pleine toi ah, aussi. c'est pas grave nous sommes des singes. ah toi tu hmm? voilà. c'est ça. la banane contre le racisme. c'est mhm. fini on parlait juste de racisme aujourd'hui bëgguma si woon rax dara parce que après du ànd. après du ànd ku lekk sa banane nga bëgg ma mhm. ah. wax. waxal damay lekk. <laughs> merci Bijou. de rien Pape Cheikh. merci Bijou alors je rappelle un magazine boo xam ni. <laughs> mën ngeen ci fekk programme. Eh, eh, eh. bi télévision Futurs Médias. yow insolite yi mu nar a gën a mooy buy sax. <laughs> mu ngi nii ah donc euh, euh, lii c'est c'est nouveau ah, c'est sorti depuis un moment. Ah, voilà. et eh, que bu ngeen ko jëndee ba ngeen di fekk eh, programme yu <laughs> télévision Futur Média <laughs> mu ngi tudd donc TV Magazine Sénégal le magazine qui vous donne les programmes euh, TV voilà